basketeur internasional Joni ni <laughs> du dëgg de mais problème bi fu mu nekk mooy à tout moment mun na fee teg palaatu ceeb di ko añee mais <laughs> ndoy li nga ma sutee bëri na de mais ñu ngi